client Sénégal yi oto bu paanee ngeen war a dem ci mécanicien mécanicien ba defar leen seen oto oto bi baax mais fan la xeej naa si dafa defar oto fan ngeen ko mësee gis ci kër àdduna fan la xeej naa si di defar oto seen oto bu paanee sax ngeen naan wàccee kaamil doo leen bàyyi sonal nit ñi ci ay wàccee kaamil doo leen bàyyi sonal nit ñi ci lu nekk jàngi te bàyyi seen jaaxaan billaahi doo leen dem fekk yéen a ngi bokkaale yàlla Sénégal moom da ngeen ba da a yàpp yàlla borom bi subhanahu wa taala doo leen dem fenn loolu moom ngeen xam ko barki alquranu karim Macky Sall ñoo gën sëriñ si wallahi tallaahi Macky Sall ñoo gën seen sëriñ si ndax Macky Sall daf leen nax ci àdduna Macky Sall moom woowu leen ci diine di leen dig àjjana moom woowu leen di ko ngeen ñàkk fayda li ko gën a waral du yéen sénégalais yàlla du leen may xel ngeen di xalaat ngeen nekk ay nit mais problème bi mooy yéen sëriñ si ñoo leen tënk diine moo leen tënk bu ngeen naree jug sëriñ ba ñëw ay kon sëriñ ba ñëw leneen sëriñ ba ñëw di leen nax di leen fowee yeewu leen te nekki nit yeewu leen te nekki nit pikiir yi lu tax ngeen tiit da ngeen bàyyi jubal yàlla dafa loo xam yàlla moo ko sàkkee nit mu bind mu ne ak mu ne yàlla su borom ne ci alxuraan laqad xalaqnaa insaan fii kabat damaa bind doomu aadama si coono si coono nit moom maanaam yàlla dalaa bind si coono si coono maanaam àdduna moom coono rek a fi nekk mais boo bëggee am xel mu daal da nekkal yàlla borom sax dala mais boo baax boo ngeen bàyyee yàlla mi nga xam ni moom moo la tracé yoon ne la nga nekk di nga nekk ci salaam ngeen bàyyi leneen nga xam mooy mayee jàmm ana ci ñi ngeen jébbalu tey lan la leen mënal ñoo leen di musal ci pikiir ñoom dañ leen gën a kii pour ngeen dugg ci pikiir sëriñ bu nekk dégg naa sëriñ ba nekk Bawal dégg naa sëriñ ba nekk euh, fële nu mu tudd beneen dëkk boobu ñaari sëriñ yëpp même wax ku ci nekk yaa ngi xiim xiim yi sa di fooyee askan wi ndax say wax ñi ngi koy wiiri jëmale ko nañ leen duut pikiir yi da ngeen déglu médecin yi yeewu leen ngeen utiliser seen xel yi barki alxuraanu karim maa nii ñoo leen tardeel maa nii ñoo leen tardeel waxee ñu naan ay da ngay dingat da kii lu tax ba duñ ko dingat lu tax ba kenn du diingat yéen seen maam yi ngeen tax naan yàlla la lu tax ba duñ diingat lépp lu tardeel askan wi yéen yéen nga ca lépp loo xam ne doo leen xeexal askan wi mukk ana seen baati ni ana seen mbóoti nañ waxante dëgg Sénégal yéen a ngi tiit toog ci xortu gerte ban sëriñ moo leen fi mën a dimbali laa wax ngeen dégager ko damay dégg yéen si yéen ñu bari léegi gaa yi leen commencé sa waay nañ wax ci Macky Sall nañ bàyyi sëriñ si nañ wax ci kii bi système bi loolu ku koy xeex naa fekk nga ngeen xam ko damay dégg temps yi nag sama gars yi nag ku dugg ci ay live di daal ay nit di dal ay nit ngeen bàyyi seen tàppale yi ñuy wax sëriñ si ñëpp li ñuy wax dëgg gu wér la ñuy wax waxuñu benn waxu danoo sosol nit dañuy dégg ab sëriñ digle piggéen ñu leen sëñ bi li nga digle du yoon ba pare indi ko wekki ko ci alquranul karim ay jaayal nekkuñu fi ay sëriñ di firee alxuraan lu noonu ñu dem ni nga ko firee sëñ bi du noonu du dëgg lii kasee fi nekk mais lan moo fi weddi sëriñ sëriñ yoo saraxe kase askan ndax askan bi àjjana gi leen di ay bàmmeel yi di du dëgg tàdde la laaxira yéen àdduna bi pikiir yi donc ay américain xaw ma ay lan ak lan bëgg leen indi pikiir kenn mënu leen ci xëtti kenn benn la diggee dara yomal naxul bu la diggee dara yomal xam nekkul ay fen bu ngeen yeewu ngeen yu nii ngeen bàyyi sëriñ si dañ leen di tànneel courtier yi kese leen tànneel bàyyi ci alxuraanu karim ndax jàngul leen jub jàngul leen diine ku mën a takk sëriñ photo sëriñ nga réew sëriñ bii nga yaakaar nga jàppee ko nit yàlla nga mën a dem agressé ji kooku ban njariñ dana sëriñ bi amal ci suba maa ngi dégg benn sëriñ sëriñ bi lan la wax di sax lan la wax dafa wax bi ñàkk teggin waaye xaw ma xaaral ku moytuwul maa ngi fi vidéo bi waxi tojaange daal man koo xol di bon sa xol di bon sa xol jeex sama gars yi <laughs> jàngi leen di ngeen bàyyi seen jaaxaan yi barki alxuraanu karim xeex leen seen xeex Sénégal bu ñu ko bëggee xeex bu leen déglooti ay sëriñ di déglu ay nit bu ngeen bëggee xeex Sénégal yéen seen maay ngeen di demee ndax dama leen di déglu ci réseaux sociaux yi nga déglu ab taalibe wax wax jub bu ñu waxee ci pétrole ba mu wax ci wax ju jub bu ñu waxee ci wàllu àdduna la wax ju jub mais fu ñu demee ba tudd sëñ ba rek maanaam malaaka bi nga xamante ni si maanaam moo kii moo moo mooy kii xaw ma jaami xaw ma nan wóoli la tudd wóoli malaaka bu tudd waali ñëw jaar ci turu di business teg ko fii ah malaaka bu tudd waali malika malaaka bu ko gisee xam ngeen ndax seen bopp yi war a ba nga malaaka bi malaaka bi wóoli ni li du ñëmé yalla li du yapp askar li lii du fowee ba bari ñu ne ki ci di ko sëriñ ah sëñ bu waxuma dara sëñ bu indi wali sék tek ci kanam ma ne leen sa way sëriñ si ñu saraxe ñu sun combat bi lan la nañ xeex wala ñu bàyyi ñun affaire ki la lay xeex affaire sa way wali sék mo fi ki ni wali sék mo fi nekk fi sa way indi fi affaire goor jigéen ma gis sëriñ diw diw sangam sol mbaxana bu taxaw ni sa way di dëgëral wali sék sama gaay ki sëriñ bi daf ñoo sarax affaire kii bi buñ jógee di di dox ñaxtu moo ko gars yi naan da ngaa contre sëñ bi jékki-jékki ne suqama sànni ma fële ne bu leen kenn tudd te yéen a gën a xam li waali la muy liggéey xam ngeen xam ngeen li góor nekk ci góor xam ngeen système bi nekk Europe xam li xew mais kañ ngeen nekk nit ngeen bàyyi comme service yi nga xam dañoo ànd ak système si wala ñu jàngal leen diine gu wér fekk yéen a topp lii billaahi loo leen dem fekk yéen a ngi bokkaale dina leen dudd duut pikiir yi ndax yéen ñi bàyyi yàlla bi leen bind moom leen ngeen dem di jox seen bopp ay doomu aadama ñi ngeen jox seen bopp léegi àdduna ak alaxira nañu dimbali ci pikiir yi nañ leen leen na sëñ bi sëñ xam ne moo ci bàmmeelam ngeen ne sëriñ boobu moo defar gi moo tax àdduna gi neex moo tax Sénégal gi neex Sénégal ñoo tax ñu gore ci buumu jaam gii te du dëgg ban buumu jaam lañ gore xam ngeen day nax seen bopp parce que alxuraanu karim toogee fii sëñ jëw sànn ko moo tax ñu gore ji bu mu jaam bu du woon ak moom duñ gore ji ban bu mu jaam nañ gore pikiir ñu ngi ko fiy dugal di leen ko duut ban bu mu jaam ngeen gore franc CFA bi ban bu mu jaam ngeen gore seen pétrole beeg seen si lépp ñu ngi koy jël ban bu mu ban ban ngeen wax nan lañu ñu gorelee ci bu mu jaam war ngeen toog di utiliser seen xel yi di waxtaan di ju seen maay yi bàyyi seen dof-doflu gi ba pare ne bu ko fi kenn wax ko ne sëñ bi moom. <laughs> bëggee laaj ko nit nga laajte ko ñu ne la da ngay jéem kon yéen a bëgg a tënk seen xel yéen a bëgg a dof dof mais bu leen taadee seen bopp nag di taadeel nit ñi wax dëgg fa yàlla bu leen neexee gëm leen lu leen neex def leen mais bu leen taadeel askan bi ngeen dem ci sëriñ soosu nag ngeen ne ñoom ñoo tax Sénégal am l'indépendance ñoo tax Sénégal bu mu jaam benn bu mu jaam dugg tey ay jaam lan yéen ngeen koy xeex nga mën a ñëwaat toogaat léegi ne bu mu jaam gi dox ne sëñ bee ñu goreel ci fan la ñu goreel yi doo leen bàyyi dof dof lu gi tey wax du mën a lekk loolu du fonk mag du bëgg mag nekkul fonk mag bëgg mag mooy ngeen bëgg a tabax dëkk bi ci ay fen di waxal mag mi lu mag mi defut di waxal mag mi lu mu nekkut mag mi yàlla la mag mi benn yàlla mag bi moom day dugale àjjana du dëgg mag mi bàmmeel da dafay ramu du dëgg mag mi moo gën ëpp yeneen salaasam du dëkk te ngeen nax seen bopp mais kañ ngeen bëgg a dund ngeen bëgg a dund il faut ngeen tabaxaat seen xel yi ra raxas seen cerveau yi mu set ngeen nekk nit pour mën a dem billaahi lan leen taaleel quoi lan leen taaleel dañ leen jaar leen moo tax comme man man alhamdullilah sa kenn teguma ci baram ko ma lan jaay gars yi damay dégg ay kebo dini rek yu tuddu ñeneen mais kuma ci tuddu ba naan ma ay serigne ci ngay waxal ak yooyu di nga ma foo ko ndax nit ki boy wax naan ndax tapale kase ngeen def ak caaxaan ndax nit ki boko naan bayil li bayil ko tuddu serigne mais da nga kay tek quoi ne ko yow sa wax ci fii da nga jumdi ndax lima wax fi du deug serigne ci dama ni leen amuñu yeurma yërmande ndax du deug amuñu ben yeurma de ma tek ko fu leer manila khalis bu lewat bu lewut lepp la lek lekk xaalis yépp la amal bandi yi dañuy lekk xaalisu bandi xaalisu woykat boo xam ne ñu koy jiiñ góor jigéen dañuy lekk xaalisam xaalisu làmbkat Balla Gaye dañuy lekk xaalisam xaalisu El Hadj dañuy lekk xaalisam xaalisu ay kon dañuy lekk xaalisam te ñun ñëpp ay nit jaaxal kese la amul ku ci toog di soññu diir te ku ci ñëw ay kon ab taalibe ba nekk di leen bàyyi la tool di leen kii di koy ñàkkal fay rek di ko teg dàll ay kon bu ñëwee du ko teg dàll te ab nit zaahir la ca kaw lay toog ca fauteuil ba lay toog wala bu toogee ci day sóob. ah lii du dëkk xaalisu sawaay bu xeebuñu benn xaalis xaalis ñëpp la nekk faqiir baag ñëpp seen deret yi la ñuy naan boo amul sax yalwaan woon ne dama yalwaan sax jox nga def seen compte baag lekk même boo amul sax ñu yalwaan woon ndax lii yéen ma dee la jiw xeet dañu waxante dëgg waaye yéen bi doon liggéey yéen bi daawul nekk di tàllal loxo yéen bi salaa loxo biy jox moo biy joxe moo gën loxo biy nang mais yi ay xeeti yalwaan la xeeti naxaate xeeti agaare agressé takk jaam nit ñi teg ko tem xel bu dee ci diine diine nee la dara du ci dëkk ndax ñii bu fekkente ni li ngeen leen di jox nii pour ut ci tuyaaba moo ne tuyaaba na ko waxu dëkk ndax kuy def xaalis moom kuy joxe dañ def pour ut ci ngërëmal yàlla pour ci moo ne tuyaaba yàlla kase moo ko am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën sëriñ si gën bàyyi sëriñ si yettu saa sam amul moo ne tuyaaba bu ko amoon bàyyi di xam du dem safara daf koy jox ay mu nekk ay tuyaaba gi bare bare mu dem àjjana mais yàlla def ko ne ñaan gi ngay ñaan sa bàyyi dëkk bi sax ma daf doy na doy na kii safara la jëm yonent bi bu mënta assuré doomu aadama bu mënta assuré nit nan lay keneen mën a assuré nit ndax ramm bi ngeen wax yomal xiyaam naan yéen saam day ramm ramm yomal xiyaam yéen saasam day fekk benn fàqman agresseur ab mooykatu yàlla yent bi salaasa bi mooy koo xam ne day nekkal borom bi santala topp Muhammad salaa sallam topp ay digalam di bàyyi ay tereem yomal xiyaam yàlla ko Muhammad salaa sallam rammul kii réew ma xiyaam booba ramm la yent saasam di ramm mais seen façon ramm waate yi c'est faux amut Muhammad salaa sallam nii lay rammoo ramm boobu mu am yomal xiyaam yaw duul moo say nga xamal la benn affaire maanaam seen saaga yi ngay bind li lépp loo xam ne sama yaay am na ko sama baay am ko sa yaayu sëriñ am na ko sa baayu sëriñ am na ko lépp lu sama am rek sa ndeyu am na ko lépp lu sama baay sa baayu sëriñ am nga ko lépp lu sama ndijaay am am na ko loolee nag maanaam li ma wax nii jël naa ko delloo ko ci sa ndeyu sëriñ ak sa baayu sëriñ ndax sa sëriñ xam naa ne moom nga gën a respecté yàlla bi la bind sax kon loo fi wax ci lu ñaaw rek loo ci wax rek lu sa ndey am lu sa sama yaay am sa yaay sëriñ am na ko la nga wax sama yaay delloo naa ak sa yaay sëriñ